ñaar Korent ci lu jëm ci samay mbir nag maa ngi leen di ñaan man Pool mi ñu ne ci seen biir ragal laa bu ma leen soree niime maa ngi leen di ñaan ndax woyof ak lewetaayu kirist ngir bu ma ñëwee ma bañ a ànd ak ñeme gi may dencal ñenn ñi xalaat ne gis-gisu nit lañu topp dëgg la ne nit rekk lanu waaye duñu xeexe ne nit ndaxte gànnaay yi ñuy xare jógewuñu ci nit waaye ca yàlla lañu jóge te ànd ak kàttan ngir daaneel ay taataa dañuy daaneel xalaat yi dul dëgg ak bépp tiitër buy jànkoonteeg xam-xamu yàlla te dañuy noot bépp xalaat ba mu déggal te fas yéene nanoo jubbanti képp ku déggadi bés bu seen dégg ndigal matee xoolleen mbir mi ne fànn bu amee ku mu wóor ne ci kirist la bokk na jàppit ne su bokkee ci kirist nu itam ci kirist lanu bokk awma lu may rus su may damu lu ëpp ci sañ-sañ bi nu borom bi jox di sañ-sañu yokk seen ngëm te du ngir seen kasara ba tey bëgguma ngeen xalaat ne maa ngi leen di xëbal ci samay bataaxel ndaxte am na ku naan ay bataaxalem dañoo ñagas te am doole waaye bu teewee dafay ñàkk fulla di wax waxi picc kiy wax loolu na xam lii ni sunuy kàddu mel ci sunuy bataaxal bu nu fa nekkul noonu it lanuy mel ci sunuy jëf bu nu teewee ñimiwunoo féetale walla méngale sunu bopp ak ñoo ñu naw seen bopp ci li ñuy sàkk ab natt ngir natt ka méngale seen bopp ak seen bopp ñàkk xel a tax nun nag duñu damu ci lu weesu dayo nu ngi damu ci liggéey bi nu yàlla sas ba may nu nu agsi ci yéen bu sunu sas agsiwul woon ba ci yéen kon mën nanoo ne génn nanu sas wi nu yàlla sas waaye agsi na ba ci yéen te indil nanu leen xabaar bu baax bi jëm ci kirist kon nag du nu jéggi dig yàlla rëdd bay damu ci liggéeyu ñeneen waaye am nanu yaakaar ne su seen ngëm yokkoo dinanu gën a màgg ci seen biir des ba tey ci dig yi nu yàlla rëddal noonu dinanu mën a yégle xabaar bu baax bi ci barab yi leen féete ginnaaw te bañ a damu ci li ñeneen ñi def ci seen sas waaye ni ko mbind mi waxe kuy damu na damu ci borom bi ndaxte ki neex yàlla du ki naw boppam waaye ki yàlla gërëm